Diouf Sarr ministre de la santé ak kii di euh, Mansour Faye ministre de l' infrastructure ñoom ñu ngi doon inauguré lii di pont bi nekk Yoff te ñoom nekk si nguur gi ñu ngi tere bépp luy rassemblement ba pare ñoom di def rassemblement loolu sa xalaat la. donc euh, nguur gi lu mu euh, digal mooy ñu éviter tout rassemblement éviter di dajale ay mbooloo donc bu fekkente ne loolu mooy loi bu ñu tëral. ñoom ñu nekk si bopp nguur gi dañu war a joxe un bon exemple voilà parce que bu fekkente ne da ngay jiite nga bugg a citoyen yi euh, respecter loi yi ak yi yow mu nekk responsable au premier plan yaa war a wane exemple bu baax même bu ñu amee euh, inauguration walla leneen ñu bañ a dajale ay mbooloo parce que bu fekkente ne ñoom dañuy def loolu rek day tax. Euh, population bi mun na euh, am benn sentiment de de défiance euh, def naka sudul noonu. Ah, sama gis-gis de mooy loolu rafetul ndaxte su fekkee ñoom ñu ngi si état bi ñu tere loolu ñu ne deuxième kii bi dafa ñëw ñuy tere interdire lu nekk kenn nekkatul sa activité kenn nekkatul sa dara ñu wëlbatiku di def lii defuñu lu rafet teguñu ko ci yoon man si sama gis-gis ak sama xalaat xaw ma ndagam noonu laam déet mais c'est pas normal. c'est pas normal xale yi liggéeyatuñu xale yi nekkatuñu si benn activité te li ñuy jóg di fortaatu si la ñu nekk ñu interdit lu bari ba pare wëlbatiku di ko def kooku tegginewul teguñu ko ci yoon. rassemblement yi nga xam ni moom la ñu war euh, di moom la état bi évite wax ne nit ñi nañ ko ba ba pare euh, ñoom ñu wëlbatiku euh, di ko mel ni ñoom seen côté dafa mel ni ñoom bokkuñu ci ñi nga xam ni ñoom ñoo war a ñoom ñoo war a bañ a def loolu daal. waaw kooku moom wax diggante dëgganteeg yàlla dañ ne nit moom buñ la jiitalee da nga war a doon royukaay waaw am na ci yoo xam ne moom waroo ko di digle ba pare te fekk ñu la ci waaw loolu moom franchement parler kooku moom du lu ñuy rafetlu. waaw ñoom bu fekkee dañuy teraloo nit ñi seen rassemblement ay rassemblement ba pare ñoom wëlbatiku seen côté dafay mel ni mbir mi euh, dafa am ci benn côté bu mu war a féete rek te loolu moo moo anormal nag c'est pas normal du tout wax fa yàlla loolu nag moom euh, war nañ ci jël ay mesures daal wala ñoom ñu jéem a xool yan solution lañ ci war a def parce que nit ki moom li ngay tere franchement parler da nga ci war a jiitu waaw balaa nga koy tere nit ki yow jaa ci njëkk ba pare. loolu du yoon mais Macky Sall deful dara xam nga lan ñan ñooy def dara. ñu ko kii ñu mu nekk ñu nekk ci kii bi ñu nekk ci wetam ñooy ñooy dugal affaire yi. ñu gis nii moom Macky Sall moom moo nekk si njiitu réew mi ba pare moom moo yabal ay ndaw. bu leen waxoon mën ngeen def loolu sans pour autant ngeen ni inauguré wala ñu ñu téye inauguration bi wax ni rek pont bi tijji nañ ko loolu nga yaakaar ne gënut ñuy def inauguration di dajale ay mbooloo. ah loolu moom warutoon am moom ñu ngi nii ñu ngi ci fête Noël dem bu ñu jógee mers avant ñuy yegg rek dégg naa ne gars yi dañuy raaful man demaa jënd li ma jënd ñëw tërik sama nekk defuma dara maa ngi ni waaw dafa mel ni sax feet amul. ko feetu nawet bi ko aay ak euh, lii di spectacle artistes yi ba tax artistes yi keroog ñu ngi doon def seen seen ñoom tamit seen rassemblement di naxaru loolu nan nga ko gis. waaw effectivement fi ñu toll nii ak euh, feebar bi euh, corona bi nu muy lawee si dëkk bi je pense que effectivement dañu war a dakk rassemblement yëpp. Euh, fête de Noël yaag euh, comment ça s'appelle encore euh, ay soir yaag ay ngénte yaag ak leneen ak leneen lañ war a dakk parce que aussi la santé avant tout nit ñi dañu war a fexe daal respecter mesures barrières yi pour que corona bi gaaw fi jóge parce que fii ak respecté wu ñu mesures barrières yi corona bi dina fi yàgg te bu boobaa ñëpp lay sonal économie bu ñu deful ndànk dina taxaw. donc moo tax daal vraiment il faut que ñëpp muñ euh, parce que c'est une question de temps bu feebar bi demee bu si yàlla àndee ñëpp dinañ dellu si seen liggéey euh, continuer vraiment di yongu si seen activité voilà parce que aussi à situation exceptionnelle mesure exceptionnelle voilà nit ñi war nañ am seen liberté d'action mais ginnaaw feebar am na si dëkk bi rek kenn ku ne na muñ contrôler lu muy def euh, topp si instruction nguur gi pour que ñu mën a xeex corona ñu daan ko lu gën a gaaw. Euh, loolu dafa ma metti lool torop torop torop torop ndax dafa am loo xam ne daf ñoo jiitu daal kenn mënu si dara ndax ñun dañoo am yàqiim si yàlla yàlla la ñu yaakaar yàlla la ñu wóolu mais li ñu def dara rafetul feetu chrétien yi du yoon ndaxte ñun ay musulman lañu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu royukaay mooy suñu kii mais yàlla daf ni bépp waliw bu mu wàcce si kaw suuf bépp ki mu wàcce si kaw suuf Seydina Muhammad moo ñëw ub lépp kon nag ñun dañuy gëm yontu yàlla instant dañ koy gëm parce que moom su yonent yi la bokk Muhammad moo ñëw ub lépp wante ñoom daal ah doy na waar ñu sant yàlla rek ñu jox suñu bopp yàlla mais li ñu nekkee doxul nekk newul rafetul seen bakkan la ñu topp lu leen neex la ñu topp wante ñu bàyyi leen ak yàlla ndax ñun ñu ngeek yàlla